الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين أما بعد نونجي سنت سنو بروم سبحانه وتعالى di dellusiwaat di àndaat ak yéen ci jataayu tafsir bi ñu baaxoo di amal àllarba ju nekk ci waxtu wi mu jëm ci téereb sunu borom bi subhaanahu wa taala tey jii nu war a tàmbale ci laaya ju màgg ci biir suratu nuur sunu borom subhaanahu wa taala ubbee ko turam wu màgg woowe di allah xam naa buñ ñu jàngelaayu njëkk ji rek insha allahu taala dañuy daal di door liggéey bi audu billahi min alshaytani arrajim بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس wallahu bi kulli shay'in alim bismillahi irrahmani irrahim borom bi subhaanahu wa taala neena allahu nuuru samawati wal ard yàlla mooy leeru leeruk asamaaw yi juróom-ñaar waaye mooy leeruk suufi juróom-ñaar woroom xam-xam yi ci seeni tafasir wuute nañ ci ni ñuy tekkee allahu nuuru samawati wal ard am na ci ñoom ñu wax ne allahu haadi ahli samawati wal ard maana yàlla mooy aji gindi waa asamaan yàlla mooy aji gindi waa suuf bi maana ci leeru sunu borom subhaanahu wa taala ci la ñuy gindeekoo ñoom waa asamaan waaye ci leeru sunu borom subhaanahu wa taala ci la waa suuf di gindeekoo loolu am piri la am ñu ne allahu munawwiru samawati wal ard yàlla daa bëgg a wax ne man maa leeral asamaaw yi waaye maa leeral suuf yi yàlla moo leeral asamaaw yi waaye moo leeral suuf yi te ni mu leerale suuf xam nañ ne ab jant la leerale suuf waaye itam asamaaw leerale ne ko ak ay biddiw leerale ko ak dégg nga weer wa jaala al qamara fihinna nuura loolu am piri la ci am ñu ne allahu nuuru samawati wal ardi sunu borom subhanahu wa taala mooy leerug asamaan ak suuf rek ni ko sunu borom yàlla waxe su ko defee ñi wax loolu dañuy wax ne sunu borom léeg-léeg mu jël leer taf ko ci boppam min baabi idaafati sifati ila al mawsuufi waaye léeg-léeg itam mu jël an nuur taf ko ci boppam min baabi idaafati al faa'ili ila al maf'uul nga xam ne bu ñu waxee ne min baabi idaafati sifati ila mawsuufiha la kon leerug boppam gi nga xam ne dafa taqoo ak moom di aw melo ci moom di aw melo woo xam ne wu sax ci moom la lu mel ne wa ashraqatil ardu bi nuuri rabbiha ëllëg yowmal qiyaam sunu borom subhanahu wa taala buy ñëw ca pénc ma suuf si day def tay leer naññ bi nuuri rabbiha foofu nuur googu sunu borom yàlla daf ko laaf ci boppam min baabi idaafati sifati ila ila mawsuufiha léeg-léeg sunu borom subhanahu wa taala wéer an nuur ci boppam ci ne mooy ki nga xam ne moo ko bind moom leer googa moo bind leer googa loola ku ne xam ne ne leeru jant bi ku ne xam ne ne leeru weer wi ku ne xam ne ne leeru biddi wi la lépp ci ay mafulaatam la bokk moom sunu borom subhanahu wa taala ñëw na ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne sunu boroom xijaabuhu nuur maanaa li nga xam ne moo dox suñ digganteeg moom lépp ak leer la bi maanaa li nga xam ne mooy la muur boroom bi subhanahu wa taala di kiiraayam nga xam ne moom la kiiraayoo leer la mu tekki ne bu fekkoon ne xijaab boobu daf koo dindi kon leeraayu xar kanamam na mu leere fu ab gisam àgg loola dana lakk ngir leeraayu leer ga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam itam gis nañ muy tawassul ci nuuru wajhillahi subhanahu wa ta'ala bu ko defee sunu borom subhanahu wa ta'ala bu mu doon ci prix yi nga xam ne moom la ñu waxta jàpp naa ne saxalal sunu borom subhanahu wa taala ak leer loola yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay ñaanam gis nañ muy wax ak borom bi subhanahu wa taala naan ko anta nuuru samawati wal ard yow yaay leerug asamaaw yaay leerug suuf moom yàlla nag léppam leer la bu dee ay waxam leer la wa anzalna ilaykum nuuram mubina lislaamam ji ak leer la afaman sharaha allahu sadrahu lil islaami fa huwa ala nuurin min rabbi waaye lépp loo xam ne bàyyi koo na fa moom subhanahu wa taala loola ak leer la mu daal di joxe niral moom sunu borom subhanahu wa taala ci leeram gi nga xam ne moom la def ci xolub aji gëm ji yàlla joxe niral ci leeram gi nga xam ne moom la def ci xolub ki ko gëm mooy leer goo xam ne mi ngi jaare ci alquran leer goo xam ne mi ngi jaare ci sunna te ñaar yooyu waxyu la te borom bi subhanahu wa taala day faral di jël waxyu muy waxam di ko tudde ak leer walakin ja'alnahu nuura nahdi bihi man nashaa'u min ibadina wa anzalna ilaykum nuuran mubina mu ne misaalu leeram moom sunu boroom yàlla leeram gi nga xam ne xolub ki gëm yàlla ci la gindeekoo ba lépp leer fi moom ba nga xam ne ña nekk ca lëndëm da leen di gis ñu nekk ci biir ak lëndëm mooy ñi nga xam ne dunduñu alquran ñi nga xam ne dund dunduñu sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam leer gi sunu borom yàlla def ci xolub ki ko gëm misaalam niralam masalu nuurihi borom bi nee na kamishka kamishka dafa mel ne benn mis mishka lan mooy almishkaatu almishkaatu mooy kuwa boo xam ne laa man fadalaha bi maanaa ab kuttumbalu boo xam ne dañ koo yet ci am miir te ab kuttumbal li ci gën a bari buñ ko yett ci am miir duñ ko yett ci suuf duñ ko yett ci digg bi waaye dañ ko yett ca kaw lu kuttumbalu loo xam ne dañ ko yett waaye jàllut jàllut loolu mooy almishkaat mishkaat boobu sunu borom subhanahu wa taala moom lay nirooleeg dënn ab dënn ab dënn ndax day féete ci digg ndax day féete ci suuf déedéet dënn fii lay féete ci kaw loolu mooy tolloo ak mishkaat bi nga xam ne dañ koo yet mu kuttumbalu nekk ci kaw am miir waaye tashbih bi maanaa tamthili la li loolu mooy nekkul am mishkaat noonu rek waaye mishkaat la boo xam ne fiiha misbaax dafa am ab làmp bu nekk ci biir mishkaat boobu noonu lii bu fekkoon ne ab làmp la ngeen xam li tudd làmp pétrole ya nga xam ne da daan am ak mees am loo koy yuqee fii mees gi jug mees googu day sëppe ci benn dégg nga kutumbal boo xam ne pétrole daa nekk ca biir nga xam ne tooyaayu mees gi mooy seet di seet ba àgg ci cat li muy loolu ñu wax fati la su ko defee misbaax bi mooy li nga xam ne mooy tàkk liy tàkk loolu la ñuy wax misbaax maanaam kon buñ jëlee al mishkaatu wax ne mooy dënnub ab jullit dënn boobu fa la xol ba nekk walakin taamal qulubu lati fi sudur dënnub jullit bu fekkee dañ koo nuróolee mishkaat boobu fiiha mi ngi ci biir mishkaat bi lan misbaax mooy nuurul iman maanaam leeru ngëm yàlla gi leeru wéetal yàlla gi leeru xam gi yàlla leer di dellu ci yàlla leer wéeru ci yàlla leer googu noonu dafa nekk ci biir mishkaat boobu mooy li nga xam ne mooy làmp bi moom lañu teg ci barab boo xam ne barab bi jàllut man a yett bi jàllut ndax kon leer ga day génn ci bit leer yi su boobaa du mën a yànji ni mu war a yànje waaye day ku soo xam ne dañ koo waajal rek ngir lan ngir làmp boobu rek man faa tege nga xam ne tey leer gi da koy dajale ba nga xam ne foofa day leer naññ du génn di jàll léegi misbaax boobu nga xam ne mooy takk di leeru ngëm yàlla googu di leeru xam gi yàlla di leeru bëgg gi yàlla di leeru wéeru gi ci yàlla almisbaaxu fii zujaaja lamp boobu noonu nga xam ne mooy liy leer di tàkk ci biir te mooy leeru ngëm yàlla gi ma wax dafa nekk ci benn lan zujaaja zujaaja neewoon naa mishkaat bi moom laay nur moom la ñuy nuróoleeg dënnub ki gëm yàlla lay tàkk ci biir mooy leeru ngëm gi leeru xam gi yàlla leeru wéetul gi yàlla loolee di tàkk dafa am lu ko ëmb muy ab zujaaja zujaaja boobu mooy tolloo ak xolu ki gëm yàlla xol dafa niroo ak ak zujaaja ci ñetti yëf nuru na ko fii riqatiha wa fi salabatiha wa fi safaiha bi maanaam dafa rattax moom weer bi ñëgasu riqa mooy ñàkk dëgër ñàkk dëgër gi ma gi ma jubloo wax mooy yërmaande gi nekk ci xolu ki gëm yàlla nooy gi nekk ci xolu ki gëm yàlla rawatina bu fekkee day jëflanteeg moroom ku gëm yàlla ne moom ruhamaa baynahum adillatin ala almuminin waaye noonu la amee dëgër ci salaaba ci bu fekkee daa jàkkaar la ko gëmul yàlla noonu la dëgëre ci wéyal ndigali su borom yi subhaanahu wa taala ashiddaau ala alkuffar adillatin ala almuminin lu juróom aizza ala alkafirin xol boobu dëgër lool ba bu jàmmaarloo wala mu jàkkaarloo ak ku weddi yàlla ngay xaw a jaaxle ndax kii mooy ka doon jooy ci biir julli ga ndax kii mooy bañ waxee laaya ja ka doon jooy ndax kii mooy ka doon ñeewante ak yëram fas wa ak muus ma ba mu koy yàqal sax lu bëree bëri fekk na ñaar yooyu dafa dafa daje ci xol bi ni mu daje ci ab verre waaye as safa mooy sell ak set sell gim sell moom verre bi ak set gu mu set moo tax maanaa day gis mbir yi ca namu doone lay dëgg day leer fi moom caaxaan yi day leer fi moom day gis ne dëgg daal weesuwut li yàlla sama borom jàngale day gis ne dëgg daal weesuwut li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale leneen lu dul moom ak luñ ko taaral taaral ak luñ ko rafetal rafetal moom safaa u zujaajatiha mooy xol bi ni mu selle ndax leer ga nekk ca biir mooy tax day gis loola mu leer naññ fi moom nga xam ne moom du ci am sax lu muy nattable ci ne lii maanaa bokkut ak li nga xam ne mooy li bàyyi ko ci sunu borom subhaanahu wa taala léegi sunu borom yàlla joxe na niral dégg nga ci leeru ngëm gi mu def ci xolub ki ko gëm ne daa mel ne benn miska ku tumbal bu ñu yett ci kaw ab miir fiihaa nekk ci biir miskaat boobee al misbaax misbaax ba nekk lan fii zujaaja léegi ñu ñëw ci jëmmi verre bi ci boppam verre boobu noonu ci ni mu taaroo ak ni mu sete ak ni muy ler-leree ka annaha daa mel ne moom le verre bi kawkab ab biddiw la kawkab boo xam ne durriyun bi maanaa yun sabu ila dur dur ab per la ab per la boo xam ne dafa sell lool set lool rafet lool biddiw boobu borom bi nee na durri la bi maanaam mithla durri fi safaai wa fi rawnaqa wa fi lbahjati wa wa wa wa wa wa wa safa wala nga ne dirri un wala nga ne durri un wala nga ne lan ah durriyun durriyun loola jàng wala dirri bi maanaa fiil lay doon su booba bi maanaam biddiw boo xam ne ab jañaakon lay doon mi ngi bàyyi ko ci dara a waaye dara wa anha al azab lan lay jëñ mooy saytaane yi nga xam ne ñooy yéeg bëgg a laal asamaan biddiw boobu tàkkee ni mu leen di jañe ñuy dem biddiw boobu ni muy leere su boobaa ni muy yànje weer bi sunu borom yàlla nee na weer boobu nga xam ne moo ëmb lan misbaax boobu dafa mel ne kawkab du rii wala kaw ka mun di rii léegi nag bu dee ne weer boobu noonu nga xam ne mooy tolloo ak xol bi leer gi nekk ci biir ci xam sunu borom yàlla leer gi nekk ci biir ci wéetal yàlla leer gi nekk ci biir ci wekk sunu borom yàlla ak jox ko gëdd ni mu yànje moom leer googu bay nuroog ab kawkab boo xam ne di rii la mu des nag jëmmi mees gi ci boppam ci lan la sëppe tawaqada wala tawaqadu wala yuuqadu wala tuuqadu lu ci nekk njàngin la tawaqada mooy tàkk na moom misbaax boobu wala nga jàng yuuqadu def na ko taal moom loo lii nga xam ne mooy tolloo ak pétrole bi dégg nga maanaam fan la jële ak diwam bu doon lampe et- pétrole dama naan la pétrole bi fan la jóge maanaam li nga xam ne moom la mees gi sëppee maanaam fan la jóge maanaam euh, pétrole bi fan la jóge ma lan mooy madde bi fan la bàyyi ko mu ne yuuqadu xam nga lampe bi moom mooy siraaj mooy li muy muy li muy lee- muy liy leer ci biir liy leer ci biir mooy lampe boobu waaye leer googu noonu noonu dafa am fu muy jële doole fu muy jële doole sunu borom yàlla nee na ñi ngi koy taale min shajara bi maanaam min zayti shajara ci ak diw goo xam ne mi ngi bàyyi koo ci ak garab diw goo xam ne day bàyyi koo ci ak garab gu barkeel min shajara mubaaraka garab gu barkeel lool te garab gu barkeel mooy waxyu garab gu barkeel mooy waxyu bi maanaam leeru ngëm gi nekk ci xolub ki gëm yàlla xam yàlla gi nekk ci xolub ki gëm yàlla maanaam fan la jële fan la ko jële ci waxyu la ko jële ci alquran la ko jële ci sunna la ko jële dégg nga garab goo xam ne gu barkeel la yuqadu min shajara mubaraka mu daat ci teg baatub zaytuna mu nekk li ñuy wax badal bu la neexoon nga ne yuqadu mi mi mi min shajara shajara fi mu taxaw mën nga faa teg min zaytuna badal la yuqadu min shajara mubaraka zaytuna garab gi suñu borom yàlla nee na bar garab gu barkeel la garab gu barkeel googu ci la diw gi bàyyi ko maanaam diw gi nga xam ne moom moo tax lampe bi di leere noonu ci biir zujaaja bi mi ngi bàyyi ko ci garab goo xam ne gu barkeel la garab googa mooy mooy zaytuuna xam ngeen ne zaytuun ak diw la goo xam ne maanaa ni nga xamee ne noonu la mën a leerale jéggi na dayoo suñu boroom nee na garab googu noonu nga xam ne ci la diw gi bàyyi ko diw gi ci la mees gi sëppee ba tax leer gi jollee noonu yànje noonu la sharqiya wala garbiya bi maanaa garab googu fi mu placé fi mu sampe ci àddina bi nekkul ne bu jant bi génn dong lay am leer nga xam ne jant bi nga xam ne mooy bàyyi koo fii nekkul ne buy génn ci suba gi rek la garab gi soog a am la la garab gi nga xam ne maanaam mooy zaytuuna gi nga xam ne ci la diw gi bàyyi ko du caagee ne jant bi buy génn rek lay soog a am leer waaye bu demoon ba nga xam ne day soo du amati leer wala garbiya itam moo di du caagee ne garab gi daa nekk foo xam ne jant bi buy so dong lay jot a am ca leer ga kon fu mu nekk mu fasiru ne am na ñu ne garab gi nekkul àddina waaye li wér mooy garab gi àddina la nekk waaye sunu borom subhanahu wa taala misaal mi mu ci joxe day garab goo xam ne fii nga xam ne fii la ko samp moom yàlla day am leer ci jamono ju ne bu jant bi génn day am leer bu jant bi di so day am leer bi maanaam xolub ki gëm yàlla li nga xam ne moo koy alimenté loolu moom saa yu nekk day dox amul benn heure bu mu du dox guddi gi day dox bëccëg gi day dox day da ngay dox sax muy dox wa ja'alna lahu nuura yamshi bihi fi nnaas da ngay nekk ci mbooloo mu bëree bëree bëri moom muy alimenté rek wax yi nga xam ne day jib wuuteeg leer googu ni nga koy xàmmee jëf yi nga xam ne dañuy jub jib te juyoo ak leer googu ni nga koy xàmmee day jéggi dayoo nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala may gim la may leer googu noonu nekk sa biir xol boobu da koo booleeg benn madda boo xam ne saa yu nekk rek mi ngi dox loolu moo tax da ngay naqaree réeral ndax bu fekkoon day am yenn jamono yoo xam ne si maana day fay jamono yam fayee moom manis na la réeral waaye jamono ji nekk day dox moo tax te li gën a yéeme ci leer gu mag googu noonu mooy lu ca jóge rek mën na laa dimbale boo ci amoon wenn saar sax mën ngaa dem ak moom wenn saar sax boo ko ci amoon yàlla bu muy lixlaas boo ca amoon wenn saar maanaa moom jeex na moom ci buntu bokkaale ji noppalu nga ca moom buntu bokkaale lixlaas ci boppam moo la mayutu fenn foo ca mën a jaar qul wallahu ahad mayetu la fooy jaar boo bokkaale ahad fi daatihi ahadun fi asmaihi ahadun fi sifaatihi wa fi afaalihi ahadu ahadiyaam googu noonu moo dul mayeeti lenn luy réyete ci sa kanam assamadu ji itam moo la dul may ngay jël sa yitte di ko jox keneen du la ko mayeeti wala mu yëkkaloo ku foon ahad moom maanaam moom ngir ñu dugal ci sa bopp bii ndennum yàlla moom moo dutu mën a nekkati lam yeli walam yuulat moom moo lay xamal ne maanaam ñi des ñëpp la ñuy wax rek waaye ku ci nekk wulidu ñoom wulidu way yuulat maanaam yuuladuuna maanaam yuuladun mu bala nga danga ne moom mawludun sax maanaam ñoom ñoom dañ leen a jur hum mawludun wa hum yuuli yalidun wa hum yalidun kazalik ñoom dañuy jur ñu jur leen nga xam ne lam yel wala mu yulal moom tam dara dur may foo xam ne si foo foo maanaam foo fut putuxlu daal du am foo fu mu jaar maanaam lexlaas muy gàtt gàtt fi mu toll nii maanaam dal dal dal dafa lay dafa lay dugal ci buntu boo xam ne si maanaam moom ñi ku bëgg a dugal si bopp leen dana wan ok li fa àllax rek naas moom dox sa digganteeg maanaam di làqu feneen mënutu làqu feneen ay yooyu takk ak yooyu diwoo dégg nga ma di tardé daa nga ma daanaka heure bi nga waroon a xëy nekk fa di diwu sëñ bi qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri maa xalaq neel yàlla maa ngi muslu ci borom suba gi yow suba teel nga war a xëy di qul audu bi rabbil falaq min sharri maa xalaq lépp lu yàlla bind tam aw aw ay rek maa ngi ci muslu wa min sharri gaasiqin lëndëm gi bu duggee lu ci nekk ci ay yàlla yàlla ma ci musal ñi nga xam ne dañuy tafle ci ay pas-pas wa min sharri nafaasaati fil uqadik wa min sharri xaasidin ida xasada nga dugg qul audu bi rabbin nas moom tam nga xam ne maanaam ku ya ku kuy toog ci barab di toog maa jekkal ay barabam di xaar ñuy ñëw pour nga mu ñu musloo yooyu ñoom yow ñàkk nañ la ma ba noppi jenn laa ci biir leer gii nii buy kursi yu yàlla nay kursi yu moom itam dox na sa diggante ak seytaan yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp kaaraangeeg suñu borom yàlla am nga ko faw moo tax gii leer mooy leeru dëggantaan dëgg dëgg dëgg walladina amanu wa amilu salihati déedéet alladina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla amalahum walladina noonu la waaw walladina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala muhammad wa huwa alxaq suñu borom yàlla nee na la sharqiya wala garbiya yakaadu zaytuha yudi walaw lam tamsashu naar nuurun ala nuur mooy lan diw gii nii nga xam ne moo bàyyi ko ci garab gu barkeel googi nga xam ne fa mu sampe ci àddina jamono yu nekk mi ngi am leer jamono yu nekk mi ngi am leer sunu boroom yàlla nee na diw ga ci boppam daanaka xaw naa mën a nit xaw naa mën a leeral doonte maanaam amagut sawara wu ko fekk si ndax xam nga faaw sawara fekk si ko ngir leer gi gën a maanaa génn pour leer gi génn mooy lan jullit bi ci boppam bi ko suñu borom yàlla bindee indi ko ci kaw suuf li ñuy wax fitraam mooy bindaree bi li ko yàlla mooñe nga xam ne moom moom la indaale àddina bu bu fekkutoon kenn kenn ci àddina ko ku koy wax naan ko yëf yi nii la tëddee ku koy ku koy ku koy ku koy ku koy wëlbateeg yu mel noonu nga xam da da yàlla da ko bàyyeeg fitraam boobu rek ak xel mi ko yàlla jox xel mi ci boppam xel mi ni mu jubee xocc waaye ni mu ànd ak bind bu yàlla bindaale mooñaale ko ci moom ci xam dëgg. daanaka loolu dong xawoon na koo mën a gindi bi maanaam mu xam yàlla ne kenn la si gi xool asamaan dong waroon na ci xam ne yàlla amul moroom suuf su tàlli si nga xam ne kenn xamul fu mu yem rek waroon na ci xam ne yàlla amul moroom géej yi dex yi garab yi doomu aadama yi mala yi loolu dong dong xawoon na caa mën a gindeeku daanaka xawoon na koo mën a leeralal yàlla xawoon na koo mën a wax kan mooy sunu borom subhaanahu wa taala doonte sax amagul wax yu bu ñëw fekk si ko. doonte sax amagul dara dara ci waa ci wàllu wax yu léegi nag kooku fitra bi ni mu baaxee kooku xel mi ni mu baaxee bu ca yàlla sa borom dollee nag mu far amaat nag lu ñëw leeralaat xel mi te mooy wax yu gu bàyyi ko ci suñu borom yàlla loolu moom nuurun ala nuur lay doon dégg nga nuurun ala nuur bi maanaa lamp bi mees gi sëppe na ci pétrole boo xam ne ni mu foore moom pétrole bi daanaka maanaam xaw naa mën a leeral li ko wër muy zujaaja bi ci boppam donte nga xam ne kenn ko su ko teg boo ko fay tekki nag moom sëñ bi mu nekk nurun ala nur loolu mooy bu yàlla sa borom dimbalee doomu aadama ji xel mu rafet mi ah, fitra bu bu set bi mu far far wa- far amaale wax yu far benn yoon day nekk nurun ala nur suñu borom yàlla nee na wa yadribu llahu al amsala linnaas yàlla nee na maa ngi leen di sampal ay niiral ñan laa koy sampal xanaa nit ñi ngir ñu mën cee jaare ngir xam loo xam ne amrun maanawi la ma yubbal ma yubbul leen ko ci amrun maxsuus pour ñu mën a xam dëgg-dëgg lan laay wax mu tekki ne wallahu bi kulli shay'in alim loolu leer na fii yàlla lépp la xam xam ngim xam lépp maanaam bala nga koo xam dëgg-dëgg mooy misaal yi muy joxe ci alxuraan misaal yi muy joxe ci al xoolal xoolal misaal mi mu joxe nga xam ne jamono ju nekk rek mën naa valable amul jenn jamono joo xam ne si yàlla daa am misaal moom joxe ci alxuraan moo xam ne dañ naan ah misaal mi kan moom xam naa ne ca arab ya ca lañ ko mënoon misaal ndaxte moom li ñuy tuddee mishkaar amutut heure bu nekk yaa ngi gis misaal yi yàllay joxe ak ni muy dëpp dëkkoo dëpp dëppoo ak li nga xam ne mooy waaqe léegi nag gannaaw waxtu wi daa mel ne jot na ay misaal yu bari la yàlla sa borom joxe fii yoo xam ne sëñ bi yéeme gi mu yéeme jéggi na dayoo leer gii nga xam ne moom la yàlla sa borom di wax fii nag léegi nga xam ne maanaa bu ci xolub ki gëm yàlla mm, di niitu saa yu nekk day gindeeku yi dem rek léegi leer googu kooku bëgg a am kooku foo koy jëlee fan moom la ñuy jàngale ji fii bu yutin ku bëgg a jot ci leer yooyu noonu da ngay dem da ngay dem ci jàkka yi waaw fii bu yóotin adina allahu an turfa foofee la nekk waaw yàlla ngay orienté nit ñi naan leen na ngeen di dem ci jàkka yi julli juróomi ngeen fay toog ñu leen di wa wax yàlla ma jàkka ji ñuy wax lu dul yàlla nag waxuma ko waaw ndax jàkkate dañ ko war a taamir ñaari xeeti taamir ja yàlla daa wax ne jàkka ñenn doo nga ko mën a taamire innama yaamuru masajid allah man amana billahi wal yawmil axiri wa aqama salah wa ata zakat ju dog walam yaxsha illa allah ñii dong mën a taamir jàkk jàkk ju mel nii jo mooy joo xam ne saa boo fa demee rek gis nga da ngay gën di yokk leer da ngay gën di yëg ne saa boo génnee jàkk ji da ngay yëg ne la nga amoon ci leer doo lekku na walladina htadaw zaadahum huda wa aataahum taqwahum nasalu llah alladi anzala alquran alkarim an yajcalahu rabia qulubina allahuma aati nufusana taqwaha wa zakkiha anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha amin ya rabbal alamin